Ousmane Sonko dafa demoon Saint-Louis ci deuxième journée setal suñu réew euh, mu ne mu muy interroger wu ci sept cent milliards yi ne dinañ ko leeral mm-hmm. amoon na rapport ay député liggéeyoon nañu ci amoon na commission d'enquête mais euh, voilà euh, def nañ rapport et tout mm-hmm. mais amuñu ci lu leer mu am benn programme dix villes boo xam ne tamit financé woon nañ ko mm-hmm. Ousmane Sonko ne nañu leeral foo xaalis bi dugg mm-hmm. bu dee xaalis bi dafa seey ñu jàpp ne ñoom dinañu ko lijjanti mm-hmm. mais mbaa bu fekkee ñett dugaloon seen loxo ci loolu bu fekkee dañoo pointé de la gouvernance ak peut-être des détournements d'objectifs mbaa bu fekkee ne ñooñu ils se retrouvent avec vous mbaa di ngeen leen topp ah bien sûr parce que xam nga loolu la leen di topp du ñun. c'est-à-dire ñun yooyu sunu yoon nekku ci. xam nga tàng moo tax bi ma laajee ci benn laaj ma ne la man du ma ci wax parce que lépp loo xam ne dafa nekk lu tekk ci justice wala loo xam ne en fait euh, ça doit être réglé dans le cadre de la légalité ñun exécutif lañ duñ ci wax. gis nga le pouvoir judiciaire tey du ñu nit du ne ñëw dafa ñëw fekk suñu ba tax mu am ay dossiers yoo xam ne dañ ko war a. Euh, leeral ñun ñu toog di ko défendre wala dara bu fekkee pouvoir judiciaire woo na ko wala am lu mu war a rendre compte ñun dañ koy bàyyi mu ne dañ ah, koy duñ ko duñ ko téye mënuñu ko téye